combat pour lequel je serai toujours là, accompagnant évidemment la waaw xam nga man citoyen la comme yéen journaliste yi comme xale yi comme mag ñi comme jigéen ñi kenn ku ci nekk li am solo li jot a génn mooy Frank dimis nar na am suñ pétrole moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal deal bi six mille milliards juróom benn yi milliards yoo xam ne waxuñ ne pétrole bi moo koy jur seen wàll ci pétrole bi mooy loolu comme ñoom seen wàll see pétrole bi mooy loolu doomu askanu Sénégal ne nañu nañ leen jox kenn ku nekk quatre cent mille yi mu ci am bu ko defee ñu door a wax nag lan moo leer ak lan moo leerul président Macky Sall tontu yi mu joxe intéressé wuñu deux mille vingt deux mille vingt deux am gaz na am du ci Sénégal di am illa kuli xaalin danañ ko xam ñun li ñu ñor mooy li ñu def ci démb nëbboon ko ba mu feeñ lan lañ ci làqoon am na ger amul ger li wóor mooy Aliou Sall rakku Macky Sall mu ngi ci biir daf ca tax ripp ndax moom ca boppam nee na jot na vingt cinq mille dollars weer wu jot muy fukki million ak ñaar yu mat sëkk yoo xam ne dañ ko koy fay ne nañ weer wu dee ñëpp xam nañ ne liggéeyul lu tax ñu mën ko fay loolu ñun dañoo jàpp ne dañ ko ko fay ngir ger la mais comme dañ ko bëgg a nëbb ñu def ko mbirum salaire weer wu dee ñu fay la vingt cinq mille dollars waxoon na ne kenn jox ko deux cent cinquante mille dollars léegi bér na ne ki nga xam ne moo yor kàddu borom réew mi muy Aliou Kassé nee ñoom Franck Timis jox nañu Agritrans fayee ko Aliou Sall ci consultation agricole lu dem ci deux cent cinquante mille dollars muy téeméeri million ak juróom fukk loolu nag dafa wane ne gaañ yi signé nañu waaye ñam nañu ñam boobu ñu ñam nag lañ bugg bu doon benn dërëm réew moo xam ne dañ fa bëgg def transparence ñu leeral ko mu leer képp ku ci sa loxo taq ñu door la daan la bu fekkee ne nag da am ay fonction politique ñu def une sanction politique un homme politique sanction politique am mooy mu démissionner un homme politique son sanction politique am mooy ñu jëlee ko ci bopp réew mi un homme politique sa mooy mu wax sénégalais yi suñu pétrole fu mu jaar bu jaree ñu dem ba Îles Caïmans bu jaree ñu dem ba Hong Kong bu jaree ñu dem ba Curaçao wala ñu dem ba Liechtenstein wala ñu dem Monaco compte yooyu fu ñu nekk ñu xam kan mooy bénéficiaire économique dañoo doy ci compte yi nga xam ne ay numéro ko yor dañoo bëgg a xam compte yooyu ndax dafa sant Fall ndax dafa sant Gaye ndax dafa sant Sall waaye li wóor a wóor ba wóor mooy Frank Timis moom mos na jël na jaay li mu fi amoon jox na ko tubaab yi réew askanu Sénégal ñi ngi xaar daal ñu compal leen bu électoral bi génnee wala bu gaz bi génnee loolu nag moo tax xale yi nga xam ne ñoo taxawal aar li ñu bokk dama leen di encouragé dama leen di félicité di wax homme politique yi nañ leen taxawu nañ leen jàppale nañ leen bàyyi ci kanam ndax xeex bi xeex citoyen la homme politique nag citoyen la waaye bëgguñu xeex bi nekk xeexu politicien ndax bu nekkee xeexu politicien Macky Sall dafay mobiliser moom tam politiciens am yi ñuy warante ak ñun soxlawuñu loolu askanu Sénégal ndaw Sénégal ñi nga xam ne ñoom moom pétrole bi Abdoulaye dafa waxoon ne du bëgg di signer yenn contrat yi parce que dafa jàpp ne pétrole ak gaz fu mu génn en général dafay am problème ñaareel ba dafa bëgg xale yi nga xam ne ñoom moom pétrole bi ak gaz bi bu ñu màggee seen xam-xam màcc ci ñu jàkkaarloog tubaab bi négocier ak ñoom ci condition yu baax bu boobaa askanu Sénégal na ci am njëriñ waaye bëgguñu ñun ñi nga xam ne ñoo am yi ñu gis ñu ci kanam en tout cas bu doon sama sago yéen man laaj konoon du ma wax damay nekk ci gannaaw taxaw comme ni xale yi taxawee mobiliser comme ni xale yi mobiliser pour que dëgg feeñ ndax loolu rek moo am importance maa ngi di gërëm di leen sant à bientôt